defalaat jàmm ju mat sëkk ma ne jamono ji li defalaat jàmm ju mat sëkk déglu bu ngeen di àndal Amadou bu ngeen di woote Amadou Ba Sénégal yëngu leen si ndom yeeg si na bu ngeen di àndal Amadou bu ngeen di woote Amadou Ba baxane yi baxane yi bandiraɓe gokku jalluɓe miɗo salminmon mi juuromon sumdarima ɗo hannde mo wawa wasde haalde ablaye dawde diallo ablaye merci de me recevoir ici on gagnera ensemble et on gouvernera ensemble parce que le moment de s'unir autour de l'essentiel le moment de préserver la république le moment de préserver nos institutions, le moment de préserver la démocratie, ce moment est arrivé. Et il ne faut pas qu'on rate le train de l'histoire. C'est pourquoi je lance un appel solennel à tous les républicains, à tous les démocrates. Je n'oublie aucune organisation. À nos amis du Parti démocratique sénégalais, nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes préoccupations. Le président Abdoulaye Wade a beaucoup fait dans ce pays. Nous devons tous nous unir. Nous partagerons les responsabilités. Nous serons ensemble pour que le Sénégal puisse progresser dans la paix et aller de l'avant. Oh, ministre des finances et du budget ministre des affaires